suratu fatiri fatiri nag mooy tekki aji créé yàlla créateur la mooy ki bind asamaan te xoolut ko fen bind suuf xoolut ko fen bind malaaka yi bind nit ñi xoolu leen fen am na ñoo xam ne nag mënuñoo def dara waaye loo def ñu roy ko moo tax yàlla nag bañ ko ko roy xoolal bind ni jafe mu bind asamaan bind nit nit kiy dox nga ne dama koy damay damay roy yàlla tabax benn stati damay roy yàlla yett benn stati wala nga muul ko yàlla ne man ngay roy kon na mat du mat mën mënoo indi roox waaje na ñëmm rek taxaw du man dara yaay ba max yaay xenu yaay def lu ne léeg-léeg nga taxaw def ko ci maanaam trottoir yi léeg-léeg nga def ko ci sa buntu place yi léeg-léeg nga def ko fu ne dara yaa ca yenu rek bu guddi jotee rek maanaam nga xenu waat dugal ci place bi bu bër seetee rek nga yenu waat génnee yàlla ne na mat doo ca man dara mu ne na moo tax mu ne ku may roy ci li may def bu yow yowmal qiyaame dinaa la togg nga wal ca ruux doo ko man ma boole laag moom dugal safara moo tax kon loolu jar naa bàyyi xel kon yàlla mooy fatiri fatiri mooy créateur mooy mooy aji créé moom créateur lu fi moo ko am na ñoo xam ne nag loo def ñu toppandoor ko lu ne loo def rek ñu fexe ba sàcc ko maanaam falsa dafa bëri ci ji jamono lu ne dañ ko ca dugal nag lu ne rek maga ca lu kon saar wi loolu lay jàngale loolu mooy tur wi saar wi nag maanaam ñeent fukki aaya la ak juróom boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ne Makka la wàcc boo doon lim baat yi mu ngi nekk maanaam ñetti téeméeri baat ak fukk ak ñett 313 la boo doon lim maanaam boo doon lim maanaam kon baat yi day nekk kon juróom-ñeenti téeméeri baat ak juróom-ñaar fukk moom la juróom-ñeenti téeméeri baat ak juróom-ñaar fukk su fekkee da lim nag xaraf yi ñetti junney xaraf la lay saar wiy jox ak fukk ak ñett moom moom moo nekk ci ay xaraf saar wi moom nag mi ngi ciy wax yàlla bind gi bind malaaka yi moom la koy ubbee dana wax jëf ju baax ni muy yéegee jëm kaw dana wax tabaarakallaahu wërsëg gi ñuy wërsëgal saar wi daal dina traité yu baree bari bu ngeen ñu toppee ñu topp saar wi ba fi ko yàlla yemale moom lay wax si nii moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd tudd buur bi arahmaani buur bay xiwalaa koon bépp mbindéef ci àdduna arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alhamdu melowu rafet ta sax lillaahi aji sax la ñeel yàlla man yàlla mu ne faatiri samaawaati yàlla may aji bind juróom-ñaari asamaan ak awal ardeeg juróom-ñaari suuf te xoolut ko fenn jaailil malaaykati yàlla may aji def malaaka yi rusulan ñuy ay ndaw jëm ci yonantu yi yàlla yónni malaaka ci yonantu yi ku jibril uli ajnahatin malaaka yay boroomi mbagg yan mbagg ñaata mu ne mas naa am na ca yoo xam ne seen mbagg ya ñaar-ñaar la wa sulaasa am na ca yoo xam ne seen mbagg ya ñett-ñett la wa rubaaxa am na cee yoo xam ne seen mbagg ya ñeent-ñeent la waaye am na lu ëppale loola tamit moo tax mu ne yasiru dana mu dolli fil xalqi ci bind ak malaaka yi ak lu dul ñoom maa yashaawu lu ko soob am na ci malaaka yoo xam ne douze mille laaf lañ am am ci ñoo xam ne juróom benn téeméeri laaf lañ am lii la lépp yàllaa koy def inna allaha naka yàlla moomu qadirun aji xattan la ala kulli shay'in ci amal lépp lëf kon yàlla moo jar a sant ci àdduna moo jar a sant ci àllaaxira ndax lim def la kenn mënut bind samaan muy mbaar mi tiim ñu tabaarakallaahu amul keno bañ koy mën a gis kartanal yàlla mooy keno la te ki gën a xereñ ci ñun bu bëggoon liggéey mbaaram cinquante mètres fu ne dana fa tëral maanaam ay ay ay keno yu ko téye lu ne dana ko fa def yàlla def mbaar moo xam ne xamoo fa fa mu yem mu tàllal suuf si bu la neexee taxaw bu la neexee toog bu la neexee daw loo fi yàgg yàgg yàgg du la du la sàppi mukk foo nekk fu dul suuf bu yàggee rek nga mu sàppi la avion bi ngay dégg lu lay neex neex boo ci yéegoon ñetti waxtu rek ñeent nga ne wàcc laa bëgg nga dugg ci bato bi ndox mi ak nit ni mu bëggee dëkk ak ndox boo ci amee ñeenti waxtu juróom wàcc rek ngay bëgg waaye nag suuf mooy foo xam ne loo ci yàgg-yàgg moom du la du la sàppi mukk noo fi yàggee rek gën a yàgg koo dégg ñu tàgge ko mu ne moom kay yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ba kañ lox ngay wax rek yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu rek at mu at mu jot nga wax loola yéexee ba kañ nag moom kay li jara ñaan mooy yàlla nañ daje yërmande yàlla rek ndax kom bis boo demee bay dee day mel ni mu soo jaar ci àdduna yonent yàlla noox mi fi gën a yàgg nga xam ne nubuwatoom ga rek ak risaalatu ga junnee xat la njëkk ñu ko yónni ñaata xat la am dafa am werante junnee xat ya juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk yëpp naqari bañ ko laajee àdduna nu mel mu ne dafa mel ni bunt bu am néeg bu ñaari buntu ma jaar ci bunt bu mag bi génne ci bu mujj ba mu ne noonu daal la mel ci yàggaay kon yow mi nga xam ne mënoo fee am boo fi amee téeméeri at ñu ne bëri na ba ëpp su boobaa kon li jara ñaan mooy dajee ngërmande yàlla li jarañaan mooy texe boo xasee am texe ñàkkoo dara yàlla nañu yàlla may texe su ko defee booy déggee mu ne kon malaaka yi ay xeet lañ dafa bari ay façon malaaka yi am na ci malaaka yoo xam ne dañoo yore béjjën yu mel ni kéwél ñooña ñoo yàlla ga am na ci malaaka yoo xam ne seen genn wàllu yaram wa galaas la seen genn wàllu yaram wa maanaam euh, safara la ña ngay sàbbal ne allahuma yaa man yu allifu bayna thalji wan naari allif bayna qulubil muminin yow yàlla mi tàppe ci wenn yaram galaas ak safara te ñoom ñaar benn du yàqal sa morom benn yàqul sa morom li ñu lay ñaan du dara yàlla nga tàppe xolu jullit ñi malaaka yi loolu rek mooy seen ñaan mane seen ñaan nga dee ñaan ak sëriñ Abdou Aziz nga niru na ko ñaanam lépp moo doon yow yàlla yàlla nga tàppe xolu jullit ñi kon am na malaaka yoo xam ne dara du seen liggéey mooy ñaanal jullit ñi ñu juboo rek ndax jullit ñi seen ak ñàkk juboo lu métti yàlla la bokk na ci bakkaar yi gën a bon gën a ñaaw gën a gaaw ci toroxal nit mooy ñaari jullit yu meroo yonent bi wax na ko ci xadis nee na ñaari jullit bu ñu merowee kenn ku ne wan sa morom gannaaw ne ko baax na moom te mën na baax na te fekk seen ñaari baax na benn baaxut ci ñetti fan rek laa leen appal ku ci dee dem safara ku ñetti fan buñ ko xasee passé ku njëkk dee dem safara keneen ka bu dee fekk ko safara yonentu bee ko wax lu la yóbbu safara neex naa neex naa gëm ndax nit ki bu ngeen wee muy sa noon ngay noonam soo waxee dëgg sa xol bi rafetutut ca moom boo sañoon mu dee tey boo sañoon mu torox soo sañoon mu ñàkk palaasam bi boo sañoon feebar bu bon dal ko xol bu bon boobu nga am ci moom mu am ko ci yow moo lay dugal safara ma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim qalbun salim na amatuloo ko kon fooy demee aljana beneen bi yonentu bi ne guddeeg ajjuma gu jot muy guddeeg alxemes bër seddi ajjuma ak maanaam guddeeg dimanche bër seddi altine yërmande yàlla dana wàcc ba asamaan si tiim ñu ne ku ñaan ma may la kuy jéggalu ma jéggal la kuy kuy ku am soxla ma fajal la ko yàlla nee na guddi googa dañ nangu ñaan yi faj soxla yi yëkkati jëfi jaam yi ba mu mooy ñaar mu ne ñaar ñu meroo di ay jullit yàlla day wax ne ñiy bàyyi leen leen fekk ba ñuy fekk ba ñuy juboo waxuma ci ñoom dara beneen hadis bi wax na ne ñett seen julli ya passé wut seen bopp ya loola euh, xale euh, waa doom juy dëngee waajuram ca la bokk jaamu yàllam nga demut fenn ñaareel ba boole woon na ci ñaar ñu meroo nga meroo sa moromam jullit meroo ko nga am xol bon ci moom ne yaa ngay julli sa julli nga passé wut sa mbaxana mi kon maanaam fokk nit ñi juboo moo xam merooga ci wujjee la moo xam merooga bàyyi ak doom yalla moo xam merooga doomi bàyyi la moo xam merooga doomi doomi doomi doomi ndey ak bàyyi la moo xam merooga dëkkandoor ya la moo xam merooga xarit ya moo xam entreprise bi ngeen bokk moo xam intérêt yu ñàkk solo parti politique yañ bokk laak association yaak yooya kenn ku ne di xëccal sa bopp ba tax ngeen meroo ne ay jullit ngeen yonentu bi ne ñetti fan laa leen xàppal ku ca njëkk dee dem safara keneen bu dee fekk si ko moo tax kon malaaka yooya seen ñaan du dara lu dul yow yàlla yàlla nga tàppe xolu jullit ñi kon jullit ñi juboo baax na juboo am na solo ñun dañoo néew buñ juboowut perte adduna bi ñu ne juróom-ñaari milliards ak lu teg ñoo ciy dund li ciy jullit ñaata la ñaari milliards ak genn wàll bu teg tuuti ñi ci des ñëpp di suñuy noon ñëpp di ñu xeex juróomi milliards ak genn wàll di xeex ñaari milliards ak genn wàll waaw ñaari milliards ak genn wàll googu bu ñu xeexee seen bopp fu ñuy jëm xeex kuy xeex boppam day neex a duma ñu ngi lay xeex ngay xeex sa bopp kay yow maanaam eh, gañe la day yombu kon jullit ñu fokk ñu juboo yi nga xam ne mën nañ caa dëppoo ñu ànd ca yañ mënta dëppoo ñi maslaa ca waaye jullit laa du julit bokkuñ tariixa nga mere ko foo ko teg jullit laa du jullit man mii tariixa laa gëm moom da koo weddi lu ciy sa yoon la ngeen ànd ànd lenk la ci def nga bàyyi ko jullit laa jullit la am nañ tariixa waaye bokkuñ sëriñ nga mere ko foo ko teg yooyu yëpp nga nekk ci ne ab jullit nga da ngay dee rek ki dem safara yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee boo gisee mu ne malaaka yi ay xeet lañu wax naa la am na yoo xam ne seen laafiya seen bopp ya dafa mel ni dafa am béjjën ñoo yenoo aras yàlla ga am ci yoo xam ne am nañu lu mat a ñaari mbagg wax na ko ñii am ñetti mbagg ñii ñeent am ci ñoo xam ne am nañu douze mille laaf fukki junney laaf ak ñaar ku mel ni Israfil yonentoo ko wax yonentu Jibril yonentu bi dafa mas a euh, sàkku pour gis Jibril gis Jibril na ko yàlla bindee amul benn yonent bu ko mos a gis du Adama du Noox du Ibrahima du Moussa salla salawaatullah alayhi wa salaamu kenn mosu ko ca gis na ko yàlla bindee bu leen bu ñu ko bëggee gis rek day sol melokaanawu nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit bu ko daan Jibril di ñëwal day sol melokaanawu nit li gënoon a bëri nit ku ñuy tuddee dixiyatul kalab yi moom la daan sol mbubbam ma moo tax keroog xaswatu bani quraysata yonent bi moom itam dafa laaj gaa yi ne leen amuñu jaar fii jiitu ma gaa yi ne ko ah kay dixiyatul kalab jaar na fi léegi mu ne leen kooku Jibril la moom maanaam mbubbam ma la daan sol walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan wala labisna alayhi ma yalbisuun waaye jëmmi malaaka neexuta attan moo tax jibril benn yonentu mosu koo gis mel nam sayyidina muhammad moo ko mos a gis ñaari yoon la kooku ñaari yoon yëpp alquran wax na ko ci suratul najmi inda sidratul muntaha indaha jannatul mawa fi benn bi maanaam benn ba mu ne fi ufuqil mubin ñaari yoon yi la bii ci kaw suuf la bii ci kaw asamaan la fi fil ufuqil mubiin bi booba Jibril dafa ñëw yonentu bi ne ko dama laa bëgg a gis ni la yàlla bindee mu ne ko hee ñàng naa de ndax danga ma mën a gis mu ne ko soxla naa gis la fu ñuy dajee fu ko fu ko yonentu bi wax rek mu ne ko xajuma fa ñu dajee àllu kaañ bi mu ne ko xajuma fa nañ dem mbaaw mu ne ko xajuma fa moom moom moom moom daal ba ñu mujj d'accord ci àllu Cees bi yonentu bi taxaw ci digg àll bi rek Jibril ak ñëw ak laafam ya juróom benn téeméeri laaf 600 laaf la am ba muy ñëw ni rek yonent bi mel ni ku xam daanu jibril ñëw daal di yëkkati ko euh, faxasal ko yaramam wi euh, jël benn loxo bi teg ko ci mbagg mi benn mu teg ko ci dënd ba defal ko ne ko waay yow boo gisoon israfil nooy def man juróom benn téeméeri laaf laa am israfil am na douze mille laaf te benn laafam bi man ngi ca sow benn baa ngi ca penku te pourtant la muy rëy noona mu ne ko léegi-léegi mu ragal yàlla tuutee tuuti ba mel ni picc ndiiti ngir ragal yàlla kon boo ko gisoon nooy def moo tax jibril keroog la ko yonent bi ne ko malaa keroog la ko nag keroog a wax nag malaa gis keroog benn yoon yëbbun li aadama ak nuunun li idrisa ak yooyu yëpp maanaam daalun li idrisa ak yooyu yëpp ba muy ñëw melaw keneen ku dul melaw melaw nit rek la yore waaye duwut melaw duwut melaw malaaka waaye melaw melaw jibril ba kenn musu ko caa gis yonent bi ko mu a gis ñaari yoon la su ko defee kon nag malaaka yaa ngóog ak seen bër yi malaaka yi nag dafa am yore ñaari mbagg borom ñaari mbagg yi ak boroom ñett yi yonent bi muy dem di defi mi'raaj moo dafa leen a romboon am ñu yore ñaari mbagg taxaw rek di jàng duñ rukkoo mukk ñu yore ñaari ñetti mbagg rukkoo duñ siggi mukk am ñu yore ñeenti mbagg sujjóot ñu toog mukk ba leen yàlla bindee ba léegi ñu nga sujjóot ñenn ñaa nga rukkoo ñenn ñaa nga taxaw ba léegi noonu lañ def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom yàlla nañ ko yàlla fayal fu mu gisee lu baax gis aw yiw yéene ko njabootam kilifa gu baax fu gisee lu baax da ko war a yéene njabootam mu ne ah waaye malaaka yi seen payoor dana bëri de taxaw rek kii nu koo rek kii su jóor rek ñii de li bu leen yàlla fayee lii ëllëg seen payoor dana bëri waaye waaye lii de yàlla waroon na ko defal sama xeet wi ba mu demee gisee yàlla yàlla ne ko ñoom ñëpp lañ doon def dama la koy booleel nga yóbbul ko sa xeet wi sa xeet wi kenn ki mooy taxaw jàng faatiha ak saar bu paree mooy rukoo sàbbaal lu ko neex su paree mooy sigine sami allahu limin hamida bu paree mooy sujjóot sàbbaal bu paree mooy taaya mooy sëlma loolu malaaka yi mënuñu ko kon lañ doon def ñoom ñëpp lañ leen boole yow kenn nga def ko moo tax kon boo jullee boole nga mbooleem jaamuy malaaka yi te julli payooram kenn xamu ni mu toll yow boo jullee mbooleem jaamuy malaaka yëpp yow kenn boole nga ko léegi nag malaaka yooyu rukkoo nag sujjóot ya boo leen seetee ñett ñeenti catégorie lañ wala ñett ñii boromi ñaari laaf lañ ñii boromi ñetti laaf ya ñii boromi ñeenti laaf lañ borom ñaari laaf ya ci la yàlla gendee ko joxaale ko ne ko julli gi ma lay jox ña ña nga fekkoon ñu rukkoo julli ga julli ñaari rakkaa lay doon mooy julleeg suba mooy maf naa ñi nga fekkoon maanaam ñu rukkoo ñi ñekk boromi boromi ñetti laaf danaa la jox julleeg ñetti rakka kooku mooy wa sulaasa mooy julleeg timis ñi nga fekkoon ñu taxaw ñoom ti wala ñu sujjoot ñi nekk boromi ñeenti laaf danaa la jox julleeg ñeenti rakka muy tusubaar saan gexe mooy waru baa kon ñeenti yooye mu amoon ñetti catégorie moo tax maanaam julli ñetti xaaj rek la benn nga ñetti rakka wala ñaar wala ñeent julli mënu passé ñett yi rek la moo tax mu ne alhamdu melawu rafet ta sax lillaahi aji sax la ñaal yàlla faatiri samawaati yàlla may bind may aji keree juróom-ñaari asamaan wal ardeeg juróom-ñaari suuf te xoolut ko fen jaailil malaykati yàlla may aji def malaaka ya rusulan ñuy ay ndaw dafa jël yàlla jàngal nañuy doxalin yàlla mënoon naa seere lépp boppam te dara du tarde waaye doxalin a tax mu seddale mbiram yi kenn ku ne ak lam la sedd kon nag bu la yàlla seddee del seddale am na ci ñoo xam ne yàlla sedd na Jibril ne ko yow yaa yore mbiram jàngale mi yaa yónni yaa yóbbu message ci yonantu yi mu jël maanaam Mikaayil yaa yore mbiram social jël maanaam Israfil ne ko yow yaa yore mbiram soldaar yeeg li ci aju yaay wal bufta bi nit ñi dee mu ne kon mu jël Asrail ne ko yow laa dénk roox yi kon bu la yàlla séddatee cër ci àdduna séddala cër ci àllaaxira ci diina ji boo bëggee mu dox del séddale waaye boo jëlee lépp bëgg koo xaakim ma teg ko ci sa bopp gaa yi wan la gannaaw doo mën a dem kenn nit mënu dara yàlla wan ne mbooloo mooy mën a dem moo tax sa baaraam yi li tax yàlla deful ko muy benn waaye dafa boole ay baaraam bu doon benn baaraam nga am problème waaye dafa bëgg wax ne fokk am yu booloo dara mën a nekk aljamaatu rahma wal furqatu azabun kon maanaam mbooloo am na njëriñ yàlla jàngale na loola ci loolu léegi nag mu bëgg wane ne na na seen xel dal ci wërsëg maa koy joxe ku ma ko jox kenn mënu la koo xeeñ nit mën na caa ñaaw waaye mënu koo ñaawal ku ma ko xas jo ku ma ko xas xañ tamit nit mën na la koo yéene mais mënu la koo jox moo tax bis boo bëggee jox ku yàlla joxut danga nga sonn bis boo bëggee xeñ ku yàlla jox da nga ñaaw te du sotti yàlla na loolu lay wax si nii moo tax mu ne maa yaftaxi lépp loo xam ne hubbi na ko laahu yàlla li naasiñeel nit ñi min rahmatin ci ci yërmande te mooy xéewal mooy wërsëg moo xam wërsëg wu mën a doon fala mumsika déet jenn aji jàpp lahaa di ñeel wërsëg wa lu yàlla xas joxe ku ko mën a xeñe wa maa yumsiku lépp loo xam ne ngëb na ko moom yàlla fala mursila déet jenn aji hebal lahoo di ko ñeexal min bax di ci gannaawam ku yàlla jox kenn mënu laa xeñ ku yàlla xeñ kenn mënu laa jox wa huwa moom yàlla moomu al aziz mooy aji not ci nguuram alxakimu mooy aji xereña ja ba xam ñi war a yaatule wërsëg ñi war a xatleeg lépp moo ko xam moo koy jox yaa fàttali ko leen ni'matallaahi xéewal ak yàlla alaykum ci yéen hal min xaaliqin amul jenn aji bind min ngi dafa dolleeku maa ngi taxaw taxawaayu naf yu amul jenn aji bind xayrulaahi ko dul yàlla xayrulaahi ko dul yàlla yàlla doo ngay aji bind yarsuqukum mooy leen i wërsëgal mi ne samaa yi mu bàyyeekoo ci niir yi ndox mi ñëw bu ko defee gàncax yi wala ardeeg suuf si gàncax ya sax mooy ko saanu wërsëg yëpp fu ndox am rek war wërsëg am fa Omar dafa daan wax ne waxay fu yujadul maa u laa illaa amul benn buur illaa huwa ndere moom fa anee tu ufakuuna naka lay soppeef leen walis ngeen i wéetal yàlla te ngeen xam ne mooy wërsëgal te mooy bind mooy rey kenn gënu leen a gàtt xel lu tax ngeen nangul ko lii bañal ko lale nangul ngeen ko wërsëg nangul ko rey nangul ko dekkil waaye yéen nangulu leen ko maanaam eh, ne dañ koo war a jaamu kon yéen perte ngeen yàlla defal yonantu bi ne ko wa in ka su fekkee weddi nañ la na sa xel dal faqat kusibat weddee foofu nañ rusulan ay yonantu min xable ko loolu jiitu woon weddi woon nañ ñu bëri ci yonantu yi yalla yonantu yàlla noox ak yonantu ba ci isa yëpp seen gaa yi weddi woon nañ leen wa turjaxu def na delloo al umuru mbir yëpp ilallaahi jëmee ko ci yàlla ya ayyuhan naasu xëy yéen nit ñi ina waxdallaahi naka dëxalab yàlla bi ci dekkeeg ci mbugal ci safara xaqun dëgg la de kon nag falaa taxuranakum bu mu leen xor alxayaatu dund gi duniyaa bu jege gi bu leen topp àddunaak bànnee xam bi bayit ba ba mu or leen wala yaxuranakum bu mu xor leen billaahi ci yàlla alxaruuru iblis mooy xoraakon bi dafa mën a war moo tax yàlla tuddee ko xaruur inna seytaana naka seytaane adduwun noon la lakkum ñaan leen fattaxisuhu jàppee leen ko adduwan muy noon innama u daal dana hoo xisbahu kuréelam ba li yakkoonoo ngir ñu mujj rek min ashaabi sa'iiri bokk ca mbooloom safara ma alladina ñi nga xam ne kafaroo weddi dinañ lahum dal na seen kaw azabun mbugal shadidun mu tar walladina ni nga xam ne amanoo gëm nañ wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi ñooña de lahum ñaal na leen maxfiratun jéggal wa ajrun ak payoor kabirun bu màgg kon nag ñeent mooy noonu doomu aadama boo ci topp xoru doomu aadama bu toppee adduna yàqule da koy wor boo toppee yëngatu ndakaaru yi topp potu làmp yi tàkk topp programme yi buy àdduna tukki wala ngay dee sax doo ko yëg bët bu see yaa ngi ci dara ñaareel bi boo toppee iblis mu yàqal la lay jàpp na ay deegoo léegi xale nga gisoo ni nga wéree bu yàggul nga xool sa mu ne baax na yaa ngi fi demagoo léegi de nga nekk ca loola rek ba mujj yàqule nga topp bakkan bakkan moom da lay xiirtal rek ci lu bon nga topp bànneexu bakkan doomu adama ñeenti noon la am noon bu nekk yore ngànnaay song ko benn noon bu njëkk bi mooy àdduna beneen bi mooy bakkan beneen bi mooy seytaane beneen bi mooy bànneexu bakkan àdduna ngànnaayam mooy jaxasoo ku la gën a bëgg programme moom la àdduna gën a not soo ko bëggee gañe del taqoo bëri looy wéet ñaareel bi mooy maanaam saytaane yam mooy regg bis bu la roofee regg rek gañe la ci ngay déggee xadis bi yonent bi neen bu weeru koor jotee dañuy tëkk saytaane na mu ci ñu koy tëkk seen xam ngeen ne saytaane ko gis xamee xeewuñ ko ci ay seen de waaye lim ci namu mooy seytaane fi mu daan jaar di la yàqal tëju na bu buntab lekk ak naan rek foofu la doon mën a jaar yow na lekkatoo naanatoo amatul mel na ne kuñ tënk sa kanam loolu la bëgg a wax ndax maanaam mel na ne kuñ sa kanam ndax regg ak regle mënuñoo ànd ñu bëree bëri bu ñu xasee rek rek regleeti moo tax gisoo gaa yi ni ñu yaroo ci koor gi dañoo reggul moo tax kon nag seytaane bu la roofee regg rek gaña la beneen bi mooy nel mooy maanaam li ñu tuddee li mooy mooy mooy maanaam bakkan bakkan ak dañoo communiquer maanaam say bakkan moom lam lay roof gañe la mooy nelaw ku la ëpp yi nelaw moom la bakkanam gën a gañe yow 9 heures na nga tëdd bala ngaa yeewu midi yow moom sa bakkan gañe na la ndax ñaari ñooy ànd bu bu bu lekk bëree rek nelaw bëri mënuñoo teqalikoo bànneexu bakkan door a ñëw mooy wax ju bëri ju amul njariñ ku sa lekk bëri sa nelaw bëri garant place boo toog yaa fa gën a bëri wax moo tax ñeenti yi kon mooy mooy mooy mooy mooy mooy noon yi ñeenti noon yi la yàlla boo booleeg kon faw nga xeex ak àdduna fexe ba gañe ko ci wéetaay xeex ak seytaane fexe ba gañe ko ci xiif xeex ak bakkan fexe ba gañe ko ci foog néew looy nelaw xeex ak mbaat bànneexu bakkan fexe ba gañee ko ci wax farata bu jeexee nga noppi nekkaat ci leneen loolu boo ko defee rek maanaam am jàmm adduna nag nangu nag ku ko ngoro waaye nanguwul sëyi soo ko ñëwee ne dama laa bëgg mu ne indi may gu njëkk gi waaye de du nangu may gu dëkk iblis ak maanaam firaaw naa gaayam ngoroxoon nañ ko waaye sëyiwut moo tax waaje ne ko adduna yaay ni ay jëkkër ju ñëw nga nax di jay te kenn mënta tax nga sëy jommal nga gaa yi lay gëre sa ren dafay wuuteeg sa daaw saxoo ci déet saxoo ci waaw xëy na dangaa yor gaaf gu ñaaw ba tax na gaa yi baax dañ lay sori kon àdduna gaa yi ko xam duñ ko caaxaanee musiba la mu mel ni li ñu mayoon ci waxtu wi jeex na li ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaa ñu ngi sant ñi nga xam ne ñu ngi topp rajo télévision wal fajiri yi yàlla dafa ci nettali diggante abu jëhlin muy Omar ibnul Hisham ak diggante Omar ibnul Xataab ndax ñoom ñaar ñi yonentu bi sallallahu alayhi wa ba mbir yi mettee mu woote lislaam ñetti at li mu am lépp amul lu pas amagul lu mat ñeent fukki nit moo tax dëgg gaawut ñetti ñetti ati lëmm muy woote amagul lu mat ñeen fukki nit ci la tàllal loxoom yu tedd na yow yàlla yàlla nga dëgëralee lislaam ci kenn ki ñaari omar yi muy omar ibnul hisham ak omar ibnul xataab altine la yonent bi ñaan ñaan gi talaata ñaan gi dal ci omar ibnul xataab mu dugg ci lislaam mook xamsatu seen diggante ci tuub ci lislaam ñetti fan lañ rawantee xamsatu moo ñëw fekk saxaaba yi toll ci fanweer ak juróom-ñett moom mu tuub mu nekk fanweer ak juróom-ñeent ñi teg ci ñetti fan Omar ibnul Xataab tuub saxaaba yi door mat ñeen fukk moom la maam xalifa nges di wax ne wa mutimu saxaabi wa mutimu saxaabi iddata miimin omarun wa anaami diyaau ki mottali saxaaba yi lima mi muy 40 mooy Omar ibnul Xataab léegi nag fekk na mbir mi metti na ñoom ñaar ñëpp li leen tax a dugg ci lislaam rambaaj la mooy rambaajeeg nit moo leen tax a dugg ci lislaam moo tax rambaaj boo toppee tànk ya rek benn mu defar wala mu yàq xamsatu moo njëkk a dugg ñetti fan génnoon na dem rëbbi te saa yu mosaan rëbbi bu ñëwee balaa yegg këram wër kaaba gi mu fekk benn jigéen goo xam ne mbaa yàlla la ci Abdullah ibnu Jud'aan mu ne ko sa doomi mbokk mi tey li ko Abi Jahlim def bokk ak moom diine waaye metti na ma fi mu ko fekk mu toog la ko fekk di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw jël jëf ju bon di ko jëmale ci moom sa doomi mbokk mi moo gën a yaru ñëpp muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dox rek delluwaat këram tontuwut ko ci dara ndeke nag loolu mu nettali ko deretam xeeñ na ko ndax xamsatu dafa bokk ak yonantu bi ci ñaari wàll bokk na ak sayduna muhammad ci wàllu yaay ci néegu yaay ba tax na yaayu xamsatu tànta la ci sayduna muhammad waaye bokk naa ak yonantu bi ci wàllu baay baayu yonantu bi ak xamsatu ñoo bokk benn baay te ñoom ñaar bokkaat nañ benn jigéen moo leen nàmpal ci benn ween muy suway bëtu kon li leen boole dafa bëri ñetti dereet yooyu yëpp nag xeeñ ko muy dereetu nàmpaale gi dereetu wàllu néegu ndey dereetu wàllu néegu yaay mu mu kaaba gi rek fekk abu jahlin fa mu fekk rek mu dal ci kawam song ko commencé xeex ak moom di ko wax wax ju ñaaw di ko jëf-jëf ju bon di ko jëmale ci moom waa Quraysh yëpp jug di ko sotle ne ko xanaa yow da ngaa fëgg da bëgg a fekk sa doomi mbokk mi ba tax ngay def lii abu jahlin mu ne leen maa tay ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah kon maanaam bu fekkoon ne lorutoon yonantu bi moo abu jahlin lii du mën a xam moo tax yàlla balaa nangu ñaan dana am fu mu koy jaarale kon rambaa jab mbaa yàlla boobu di mbaa yàlla abdullah ibnu juraan mu wax li mu wax xamsatu ba tam xeeñ ko mu dem songi abi jahlin la ca xew-xew ca foofa la jaaree ba tub dugg ci lislaam omar ibnul xataab moom tamit benn góore ko rambaaje moom ci yoon rek ne ko da ngay jaar ne màkk yaa fi gën a jàmbaar yaa fi ëpp fit sa sa mbokk mu jigéen ma dugg na ci lislaam nag su ko defee Omar mer fekk jigéenam ba fa muy sëyee ca néeg ci kër jëkkër ja ba mu ñëwee fëgg buntu ba rek fekk mu ngi tëje mu mu mu ne leen fëgg kan la ñu ne ko mu ne leen Omar ibnu Xataab la loolu ñoo ñëpp ragal tiit mu ne ubbi leen buntu bi forcé leen gars yi ubbi buntu bi jël këyit yañ doon jàngee denc ko mu am bu ci des boo xam ne doomu mbokk maa ngi ko téye maanaam rakkam baa ngi ko téye bi mu ko yoree nag mu forcé ko jox ma kayit gi moo ma noona noona mu bañ tuub gim tuub mu mer ko dal ci kawam dóor ko ba xaañ ko deretam ji sottee ko ci yéreem yi mu toog de tëdd ci lal bi ndeysaanam daal yedd boppam xam ne def na lu ëpp gaañ sa rakk sa jigéen boo xam ne ndeysaanam yéen a bokk ndey baay ci lu demul dara nga gaañ ko nii ba tam laal ki sa yére dëgg-dëgg mu am gàcca toog bëgg yedd boppam toog ba ci kanam mu forcé ko na ko jox ma këyit yi ngeen doon jàng kooka bañ ne ko laabuloo sobe nga foog nga dem sangu janaba mu dem sangu gi ñëw mu ne ko doo ko laal ndax laa yamassuhu illal mutahharuun te li la laabal li la tilimal nekkul ndox mi mënu laa setal mu forcé woon teg moom ba jël këyit ya mu fekk ca mu jàng bismillahi rahmaani rahim jàng sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa huwa al azizu ba mu demee ba ci kanam mu yegg ci aminu billahi wa rasulihi mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi xool ba tooy xepp tul téye boppam rek mu yooxu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah moo tax Omar moo tuubal boppam li mu jàngee lii xol ba tooy rek du baatu seede bi kenn tuubalu ko foofa nag la forcer euh, jigéenam bi ne ko wan leen ma fa seen waa ji nekk wax ak wax wax wax gaa yi ne ko ma nga ca safaa ca suufu safaa boo demee foofu ko fekk booba nag moom xam ne ña tuub na waaye booba nag muy jëm ñoom yëgaguñ ne Omar tuub na xam naa boo portable amagutoon naa boo fekkoon ne maanaam eh, jokkal ma jokkal yi xawma ma eh, maanaam am na ci gars yi danañ danañ gaaw a téléphoné foofa mu dem fëgg buntu bi ñooña bañ a ubbi kan la mu ne ibnul xataab fëggaat yonent bi ne ubbil leen ko mooy kan bañ koy ubbil rek ñaari jàmbaar ñoo ko tóoj yanu ko ba teg ko ci kanam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu sukk ci kanamam yonent bi ne bàyyi leen ko yonent bi poñal ko boppam gësam ko ne ko Omar doo bàyyi sa réer gii nga nekk doo bàyyi sa bokkaale gi nga nekk ba nar cee dee la daloon sa gaaya dal la mu ne ko ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ña nekkoon foofa yëpp yuuxu ba mel ni màkk dafa am lu fa xew ba mu tuubee ba pare nag ba muy tuub moom am na ñaar fukki at ak juróom-ñaar yonentu bi magee na ko fukki at ak ñett ndax gannaaw ama fiil ba mu tegee fukki at ak ñett ci la Omar door a door a juddu boobu nag la laaj yonentu bi ne ko lii ma nekk tey tuub ci mooy dëgg mu ne ko waaw la ma neexoon nag mu ne ko loola caaxaan la ku ci dee safara nga jëm mu ne ko lan moo waral nëbbu gi nag nëbbu jeex na tey ca Kaaba ga lañ jëm daa ngeen nëbbu di nëbb di julli ca xuur ya mu jigi ngeen di nëbbu di julli fa la ca daarul arqam muy kër goo xam ne arqam ibnu arqam moo ko moomoon moom tamit moom ku teel a tuub la moo moo moo taxaw juróom-ñaareeli position ci lislaam juróom benn ku njëkk tuub moom mu ñëw tuub ba mu tuubee nag moom tamit dugg ci lislaam kër gañu foofu la daan gaay yi di dajee muy daarul arqam mu gi yàlla dogal ku ñu tuddee xalifatu Mansour moo jënd kër ga bi mu ko jëndee may ko doomam bu ñu tuddee Mahdiyu Mahdiyu mooma jaadar bi ko may ko soxnaam bu ñuy tuddee maanaam xay euh, xaysuraan moo tax ñu tuddee maanaam daaru xaysuraanati moom mooma nag mu gi bi mu ko ko mayee foofa la kër ga nekk ba mujj gi xulafaawu yi yokk kaaba gi mu jëlee yokk ko ca kaaba ga daaru xaysuraana amatut daaru arqam ibnu arqam yëpp yokk na ci maanaam ci liggéey yëpp maanaam kaaba gi moom mooma nag soxnaam si mu ko may jar na taxaw ndax jural moo mooy ki am ci lislaam ñaari xalifa xamuñu ci histoire lislaam benn jigéen gu jur ñaari xalifa yu jiite jullit ñi mahdi yu mooma xaysuraan mii di soxnaam mu may ko jural na ko eh, haadi maanaam Moussa haadi xalifa la waaye moo ko jural tamit Haruna Rashid mi ngeen di dégg xalifa ñu génn jigéen gu am ñaari xalifa yu jiite jullit ñi jigéen googu rek moo ko am su ko defee na mu ne fii ngeen doon dajee léegi nag te liñ nekk mooy dëgg nañ génn keroog la ko yonentu bi tudd dàkkantalee alfaaruq ndax moom ci moom la yàlla teqalee diggante dëgg ak lu dul dëgg ci moom la yàlla feeñalee lislaam ñu def ñaari sàppe ñaari ñaar sàppe bu njëkk bi ñaar fukki nit xamsatu jiite leen ñu defaat beneen sàpp bi ñaar fukki nit omar ibnu xataab jiite leen ñu commencé nag maaj julli ñu ñoo njëkk maaj commencé jël seen tànk yi di maaj foo tollu dégg na nañuy dóoree seen tànk yi ci ci biir màkka si la ci lañ dem ca kaaba nag commencé manifester l'islam omar laaj yonantu bi ne ko damay laaj yéen saaba yi ko fi gën a bañ yonantu bi ci dëkk bi ñu ne ko Abu Jahlin mu dem ne ko damay dem annoncé ko ne ko tuub naa ba mu ñëwee Abu Jahlin euh, saaga ko wax ko lu ñaaw mu jël buntu bi dóor ko ci dóor ko ci boppam bi te pourtant baay tax la woon ci moom waaye loolu lépp bi lislaam xasee taxaw seetatul loola yàlla nag di tagg Omar ibnu Xataab ci jëf ju baax ji muy jëf ànd ak lépp ma ngay jàkkalaan sama jëf ju baax ji yàlla nangu na koom nanguwut di xas abi lahab ci jëf ju bon ji muy jëf te jëf ju bon ji muy jëf saytaane mi ngi ko koy rafetal ne ko jëf ju baax la kon loolu la bëgg wax nii ci aay ji moo tax mu ne afa man daal daal ka nga xam ne zuyi na rafetaleef na la ñeel ko su amalihi bon ak jëfam ja muy abu jahlin faraahu mu gis jëf ja xasanan muy jëf ju rafet te seytaane moo ko rafetal kooka ndax mën naa tolloo ki jëf-jëf ju baax ba pare boole koog tiin naan ndax sama jëf ji yàlla nangu na koom déet da koo xasaf yàlla ne fa inna allaha naka yàlla yuddilu mooy sànq man yashaaw ki ko soob moo tax mu sànki abu jëhlin ak ku mel ni moom wa yahdi mooy gindi man yasaaw ku ko soob moo tax mu gindi Omar ibnu Xataab ak képp ku mel ni moom yonentu bi nag tiit lool ci xéeféer ak gaa yàlla ne ko fala tadhab maanaam bu faagaagalu nafsuka sa bakkan alayhim ca xéeféer ya xasaraatin ngir tatak sa ma njàqare mafulam li ajlihi la maanaam ñàkk gi xéeféer yi ñàkk a tuub bu mu tax nga bëgg a rey sa bopp ci njàqare loolu am na aaya bu melaat ni moom ne fa laalaka baaxiun nafsaka ala atharihim in lam yuminu bi hatha al lu mu am maanaam asafan loolu ñoo tolloog lii yàlla ne inna allaha naka yàlla alimun aji xam la bi maa yasnauna li nga xam ne ñi ngi koy def kon booxe boo bàyyi leen kon nag aaya ji loolu moo ko tax a wàcc Omar ibnu Xataab Abu Jahlin waaye dugalaale na képp koo xam ne yaa ngi def lu bon saytaane di la ko rafetal nga jàpp ne mooy lu baax waaye dugalaale na képp kuy def lu baax boole ko jàq sa lu baax li di tàllal say loxooy jooy ne ndax li yàlla na ko nangoom déet te loolu nag moom mooy li am solo alquran wax na lu mel noonu ci beneen aaya ne yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaan am na ñuy jëf lu bon ba pare njortu ne seen jëf yu bon yooya lu baax la ñoom ñi koy puukareewu dem fu nekk fekk na la ñuy def maanaam dara baaxul ci aayaat ji tegu ci aay yi tegu ci mu ngi wàcce ci abu rasin dafa ñëwoon ci yonantu bi ne ko yow yaay jàngale ne nit ñi buñ dee dañuy dekki nit ki mën naa dee ñi gas pax suul ko yan ya xam yëpp fanax muy dekkiwaat loolu ndax man nga ma cee wan mandarga mu koy wane yaa yonantu bi ne ko waaw xam nga taw mu ne ko waaw yàlla ji day taw dinaa koy gis mu ne ko mu fekk suuf su wow mu ne ko waaw bu yàlla ji tawee suuf sa tooy gàncax ya commencé sax te deewoon nañu yàlla mi wane loolu ci taw ci gàncax yi moom moomu moo mën a dekkil ku dee ci biir bàmmeelam moom lay wax si nii moo tax mu ne ko waxoo moom yàlla alladi mooy buur ba nga xam ne arsala yebal na ariyaaha ngelaw yi fa tuthiru muy jeqi saxaaban niir fa suqnaahu ñi màng niir wawa ilaa baldin jëmee ko ci dëkk waaye suuf la ki na maytin bu dee fa axyee naa ñi dundal bihi ca ndox mooma al arda suusa baxda mawtiha gannaaw dee ga yàlla mi def loolu kazalika naka noonu la demee suuru dekki ga loolu la ci bëggoon a wax kon nag yàlla mi mën a fekk suusu dee ñu dugal ci gàncax mu taw mu sax naat nga jàkkaarloog moom kooka tamit buñ jëlee ab niiw suul ko fi yaxam ya fënax boo lëggee moo koy dekkil ba ca ala an nu sawiya banaanahu rëdd baaraamam yi sax maanaam dana dana dana dana dana àndaaleeg moom kon loola amatul wéranti loolu leer na aaya ji tegu ci mi ngi wane ne tedd nga am na ñu koy wut waaye fi ñu koy wutee fu benn buntu rek moo ko mën a may mooy yàlla ndax yàlla mooy asis mooy firi ku tedd kon ku bëgg tedd da ngay dem ci ku tedd ki mu teral la soo ci luñ koy wutee ci moom mooy topp yàlla ku la gën a mën a topp yàlla gën laa tedd ci àdduna ku la gën a mën a topp yàlla gën laa tedd ëllëg ci àllaaxira lu mu ñàkk-ñàkk moo la gën a tedd tedd nga mooy xel ma dal na xel mu dal mooy tedd nga waaye bul foo nag waaj mi ngi topp yàlla di weewu fajar te amul étage amul 4-4 loolu njuumte la nit man na koo xam terewul torox na waaye tedd nga pire mooy dal li la sa borom nekk da digal nga def ci loo ñàkk man koo muñ loo am mu tuuti mu bëri nga mën koo sante yàlla gaa yaa nag dañ doon dem wuti tedd nga di ko wutee ci xërëm yi yàlla ne leen foofa du bunt ba ñoo nga dañoo torox ku torox toroxtaani rek nga mën a joxe tedd nga man kenn ko am ndax maaya aziz yonentu bi ne man arada izza daarayni fal yuti'il aziz ku bëgg tedd nga ak ñaari kër yi demal nga topp nga topp ku tedd ki mu yàlla soo ko defee su boobaa maanaam moom mu mu woddee la meloom wa waaye nag soo bëggee tedd nga dem di ko hutti ci jaami yàlla yi yàlla balaa ñoom woddee la seen melowa melow jaam mooy torox mooy ñàkk mooy maanaam yaafus ak yeneen ak yeneen bu la yàlla woddee melow jaam yi nga torox waaye boo demee ne hutti ko ca yàlla yàlla woddee la meloom wa nga mujj tedd kon tedd nga fi ñu koy wutee bëri na waaye buntu ba benn rek la mooy bi yàlla bi moo tax mu ne man kaana ku nekk yuridu namm al isata tedd nga fa lillaahi aji nekk la ñeel yàlla al isatu tedd nga jamian mbir muy mboole sende tedd ngay àdduna ak ju àllaaxira kenn ko dagale muy yàlla ku ko bëgg ci moom demal nga topp ko ci lam lay dig ci lam lay digal nga bàyyi tere ya mu dofal ke ne yasaadu dana héeg ilayhi jëm ci moom alkalimu baat bi tayibu bu teey mooy baatab laa ilaha illallah ak mbooleem sàbbal moo am doole soo koy wax rek yàlla nang ko mooy héegal boppam malaaka du ko héegal waaye yeneen jëf ya ca des nag malaakaa koy héegal muy julli yeeg woor yeeg joxe asaka yeeg loola moom malaakaa koy yéegal fuñ fuñ koy placé nag dafa wuutee jëf ya nu mu gën a sellee place am gën a kawe am na ci jëf yoo xam ne asamaan lañ la koy dencil mu yéeg fa am na ci yoo xam ne sidratul muntaha lay toog xaar la fa am na ci yoo xam ne aljaana lay dem am na ci yoo xam ne ma ngay dem ci lawhul mahfuz am na ci yoo xam ne alamul misaal lay dem am na ci yoo xam ne al ama place bu ñu tuddee ama fa lañ koy denc waaye nag jëf yooyu yëpp sàbbaal yi ak tudd yàlla moo ci am doole moom boo koy wax rek moo yëkkati boppam waaye baatab yeneen yi ci des yëpp ci xeetu jëf yi moom gannaaw bu ko yàlla nangoo malaaka moo koy yëkkati ba mu yegg foofa moo tax mu ne ilayhi jëm na ca mu ne yasaadu dana yéeg ilayhi jëm ci yàlla alkalimu baat bi tayibu bu teey waaye wal amalu jëf ji saalihu ju baax ji yarfa'uhu dana nangu ko moom yàlla wallazina ña nga xam ne nag yam na ñoom danañu pexe asayaati jëf ju bon ji lahum dal na seen kaw azabun mbugal shadidun bu tar wa makaru ulaayka pexem yooye gaay huwa moom yabooru dal ay day alko du mën a dem fenn aaya ji li ko taxawaat a bi yonentu bi amee sallallahu alayhi juróom fukki at ak ñett màkka dañoo daje woon ci seen assemblée ba bi ñuy tuddee daaru nadwa dagale seen député yëpp ñu war a wote benn dossier dossier bi mooy daal nañ fi jëlee yonent bi ak luñ ko manee nag dëgg-dëgg daal bi mu xewee ba léegi ci lañ xewi safatuñ dara tekkeetuñ dara ci dëkk bi kon dañ ko fi jëlee ñi dajee ci daaru nadwa muy seen assemblée ba nag waaye ñu wane na nag képp ku bëgg a fekkee jotaay bi boo bokkee ci Quraysh boo amee ñaar fukki at mën nga ko fekkee seen xol yi seen xel yi dafa gaaw a ñor ku bokkul ci Bani si foog nga am ñeen fukki at door koo mën a fekkee loolu lañ d'accord gaa yëpp dajee foofa am menn màgget mu ñëw taxaw ca buntu ba te ñoom xàmmeewuñ ko mu mel ni mu sol benn manto kaalahu kaala ku dëkk najat ñoom ni ñuy kaala kaalahoo mooy kaalahu ba pare wa wàccee genn walla ga ci sa euh, paasu xar-xaram ñu ne ko waaw yow màgget mi nag yaay kan mu ne ko man najat laa bàyyeekoo seen congrès bii moom laa yëg moo tax ma ñëw ndax ki ngeen di pexeel ba mu xewee ba léegi ci laa xewi kon lu ma man ci lu ko fi jëlee rek danaa ko joxe gars yi ne ko est-ce que yegg si yow sax yaay far jiite jotaay bi yaa ñu mag yaa fi mag ndeke seytaane la waaye dafa dafa dafa melokaan melokaanu woowa mu ñëw toog ne luy seen xalaat ñëpp toog mu ne yéen laay déglu député yi commencé sànni kàddu premier député bi abu boxt abu boxtari la mu ne man sama xalaat daal mooy nañ ko dugal ci ab néeg tëj ko buñ ko jox mu lekk buñ ko jox mu naan dana dee eh, naj naj diyu ba di iblis ne ko yaa gàtt xel ku kuy toog ay xibaar ak ay aaya di la jege ko ci asamaan di la fekk ci kooku dana la jox ñam te su boobaa gaa yi tëju ko fekk ñu fi ray ñu sa xalaat bi rafetut ba mu paree abu aswat ne man am naa ci xalaat muy deuxième député bi looy lan ban xalaat kàddu ngay wax mu ne li ci xam daal nañ ko takk ci gëléem goo xam ne dafa rabe dàq ko gëléem gi dal moom ci montagne yi dal ak moom ci xeer yi bu yàggee mu dee mu ne ko yaa xel kàddoom gi ni mu neexee gëléem googa noona soo ko ci yeewoon gëléem ngay mujj sukk di ko fóon ñëpp far jébbalu ñu perte li nga wax du xelaat mu bare troisième député bi yëkkati kàddoom kan la mu ne man la Abu Jahlin luy sa xelaat mu ne ñi fi nekk ñëpp contre yonantu bi fekkee congrès bi bi ñu leen seetee fukki famille lañ fukki famille yi nag li ma ci xam nañ tànn ci ñoom waxambaane wa ca gën a ñeme gën caa am jaam gën caa amee armee gën caa am fit ñoom ñëpp ñu xëy fanaan ci buntu néegam bi dana julli ci fajar buy génn rek ñëpp door a ndoor mu dee su boobaa nag famille bi di Abdou Manaaf mënuñ ca xeex ak ñëpp nu ñu def mu ñu dañuy laaj diye bu ñuy laaj diye tamit day yomb su boobaa diye yi arab ba lislaam ñëwagut fukki gëléem la woon famille bu ne génnee benn gëléem rek jeex ñu ne ko iskay ba xiin sa is xalaat bi rafet Abu Jahlin ko waa ji euh, najdi yu ba ne ko daal sa xalaat bi rek mooy xalaat lii lii laa bëggoon a dégg moom lay alquran bi juñu ne wa iz yamkuru bika lazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayru maakirin léegi na seen pexe ma jeex ñi wax loola jël nañ fukki jàmbaar fanaan nañ ca kër buntu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam iblis fekkee na eh, congrès bi booba rek la dem ci la dem ci yonantu bi ne ko gars yi yow ci wala ñu doon congrès léegi sa borom nee na ma bul fanaan ci dëkk bi war la keroog nag la war a génn war a gàddaay fekk am na juróom fukki at ak ñett ci dundam léegi nag waxambaane ya fanaan nañ ca buntam ba sallallahu alayhi wa sallam ca biir néeg ba ba mu demee ba guddi gi sori fokk mu war a génn ci la jàng sama borom jox ko yaasin mu jàng ko ba ci bu siru na mu jékki-jékki rek sànni leen ko ñoom ñëpp ñu tëdd yi nelaw seen bopp ya fees teppoo ak yi ay suuf te benn benn suuf rek la tibb ca loxom ba ñoom ñëpp di nelaw yonentu bi jéggi leen yonentoo gën a màndu ñëpp màkka li ñuy bon bon weddi ko moom lañ gëm moom lañ wóolu seen dénkaane moom lañ ko dénk moo Ali ibnu Abi taalim ne ko sama gars yi liñ may bañ bañ man lañ wóolu seen dénkaane mi ngi fi bëgguma dem ak ñoom fanaanal ci sama lal bi sàngoo sama mbàjj boo xëyee jooxe dénkaane danoo fekk ca yoon wa kenn du sayyiduna Muhammad sa alayhi wa sallam mu bàyyi fa Ali waaye Ali tamit kenn du moom Ali wa am fit sa mag ji ñuy rëbb bu fi fanaanee tey gars yi gis ko bu ko yàlla dimbalee bu ko yàlla dimbalewut ba yem fi yow nga nangoo fanaan ca lal ba sàngoo mbàjjeem nga foofa la ngëm mën a yem foofa la wóolu sa kilifa man a yem mu tëdd fa yonent bi jàng na yaasin départ na bàyyi na leen fa ña ngay départ mook aboubacar ña ngay fanaani ca xuntuma aliyu fanaan fa ba bër set benn waay moo taxaw ci état sam rek gis gaa yi yëpp nga tëdd yi nelaw mu ñëw fëgg leen te dañoo biddanti ba ñu yeew parce que dix jot na ñu yeewu kenn mun leen xool leen seen bopp li ci nekk ci bopp ci ci ci suuf ñoom ñëpp fëgg seen bopp yi gaa yi ne ku ngeen di xaar ñu ne ko yonantu bi lañ fekki mu ne kooka dem na gaa yi xool ci porox ndollu bunt bi ne ma nga nee gaa yi ne ak ah, kii kii sàngu ci biir du moom de biñ xoolee tëddin wi ak yaram ware lañ ne du moom def nañ man mati daal ba dajji bunt ba lu ci mën di am mu sàngee ko muy Ali ibnu Abi Talib wax nañ ne kenn defu ko dara yàlla hebal malaaka yu koy garde am nañu wax ne nag dañ ko dugal ci jàkka ja xaw nañ koo euh, xaw nañ koo mbugal tuuti waaye taxul mu métti waaye lu ci mun de am boo demee ci raaye bu xaadimu rasul dafa ne kenn defu ko dara malaaka yàlla yàlla yàlla wàccee ñu koy garde kenn defu ko dara su ko defee nag léegi mu nekk fa bër set mu topp mu topp yonantu bi gannaaw bi mu joxee dénkaana ya su ko defee nag ma ngi leen di fekk fële ca bani ali amrin ca kël kulsoom ibnu hadmi foofa la leen di fekk nag fekk yonantu bi ñu door a dem su ko defee nag léegi nag pexe moom mu ngi doon fexeel yonantu bi yàlla seeyal seen pexe ma lañ bëggoon amut yonantu bi jaaree ca gàddaay yi ànd ak aboubacar moom lay wax na wa is yamkuru maanaam moom lay wax ci ne wallazina yamkuruna sayyi'aati moo tax mu ne wallazina gaa ya nga xam ne yamkuruna dañoo fexe a sayyi'aati pexe mu ñaaw lahum dal na seen kaw azabun mbugal shadidun mu tar wa makru ulaayka pexeem yooya gaay di abu buxtariyoog abu aswad ak abu jahli nag gaaya huwa moom pexe ma yëbooru day alku mooy day échec du dem wallaahu yàlla xalaqakum moo leen bind waaye suñ maam la ca na min turaabin ci suuf su ma gannaaw si ga min nu fati bind leen ci toqantal ma niyu suma jaxala ko mu def leen aswaajan ngeen i ay peer góor ak jigéen rek wa maa taxmilu du ëmb min unsan ci jigéen wala tadoxo di si du sippi tamit moom jigéen illaa bi ilmi ndere muy nekk ci xam-xam ak yàlla lam ëmb dana yàqoom du yàqu dana matam du mat góor ak jigéen lay doon day gudd fanam day gàtt fan day yaatu wërsëgam day ñaawam day rafet lépp yàllaa ko xam wa maa yu amaru deefu dundaleef min muammarin ci kuñ guddal aw fanam wala yunqasu deefut wàññi min umrihi ca kuñ guddal fanam woowa min umrihi ca dundab kuñ guddal fanam wa illa fi kitaab lu mu nekk ca téere ba muy téere ba di lawhul mahfuz inna zalika naka loolu yasiru lu jàppandi la ala laa ca yàlla kon yàlla wan ne ñun ñëpp ci aadama lañ soqeekoo aadama ci suuf moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ne kullukum min turab kullukum min aadam wa aadama min turab yéen ñëpp ci aadama aadama ci suuf gannaaw si gi nag mu bind xawaa ci aadama gannaaw si gi nag mu boole góor ak jigéen li ci des lépp góor ak jigéen ñooy ànd la cay soqeekoo soqeekoo ca yàlla sos ca lañ ko sos moom la wax ne maanaam suma jaalukum azwaajan yàlla ne nag ba jigéen ak góor àndee loola jigéen nga ëmb góor laam jigéen la day matam du mat ak day yaatu wërsëgam day xatle da ndaw ndaw si day avortem dana mat loolu lépp man yàlla xam naa ko waaye tamit doom jooje bu juddoo day gudd fanam day gàtt fan man yàlla xam naa ko kon lay gudd fan fan yëpp yàlla programme na ko ba nga amee téeméeri fan ak ñaar fukk ci sa biiru yaay ci la yàlla ñëw programme fan wa ci lañ programme wërsëg wa ñaawaay ba rafetaay ba guddaay ba gàttaay ba texe ga ak ñàkk texe ga waaye nag ba ko yonent bi waxee gars yi nag kon tee ñoo toog noppalu comme yàlla def na la muy def mu ne déedéet kullun muyassarun limaa xuliqa la kenn ku ne la yàlla dogal ci moom da koy yombal ca moom ka yàlla maanaam dogal ci moom ak texe wax wax ju koy jural texe ak jëf ko fas ko day yomb ci moom ka yàlla tamit jàppandal ci moom wërsëg day yomb ci moom lu mu def am ka yàlla jàppandal ci moom ñàkk wërsëg day sonn lu mu def du am kon loolu def na ci waaye loolu yëpp nag am na lu koy mën a réparé la koy réparé di ko yokk di ko wàññi mooy ñaan ak saraxe ak jokk bokk loolu tax maanaam ñaan di am su fekkoon ne mbir yi moom yàlla def na lam def ñaan lu muy jariñati waaye yonentu bi ne ñaan am na solo mën na ci dogal bu wàcce ba pare dara mën na ci dogal bu wàcce gu dara dogal mën naa wàcc nga ñaan mu naroon a diis xooyaf dogal mënoon naa wàcc nga ñaan ba ci dogalab yàlla yàlla yéegalaat ko nde mu ni ki mën naa ñaan tamit dogal naroon na wàcc yàlla far maanaam ñàkk ko ñàkk koo wàccee kon ñaan am na am na solo léegi-léegi mënoon nañoo dogal ci yow fan wu gàtt nga nekk fi di ñaan guddeeg bëccëg di ñaanlu nekk ca ba yàlla yokk sa fan wi mën na ko ndax moo yore moo yore risque bu mag ba yamxullaahu maa yashaa'u wa yuthabbit wa indahu umul kitaab mënoon naa dogal ci yow fan wu gàtt nga nekk fi di saraxe loo am saraxe ko ba far yàlla dogal sa fan wa gudd sa war wërsëg tamit gën a yokk mënoon na fee nekk dogal ci yow fan wu gàtt nga nekk fi jokk sa bokk yi di rafetal jëmee ci ñoom yàlla far yokk yokk sa fan wi yonentu wax na ko man araada an yubsita allahu fi risqihi wa yunsau lahu fi atharihi fali yasil rahimahu yonentu bee ko wax mu ne ku bëgg sa fan gudd nga boole ko sa wër sa yaatu del saraxe waaye tamit mu ne del yokk say bokk waaye tamit sa fan mënoon naa gudd nga nekk fi dagg say bokk wala nga ñàkk saraxe foo koo ñaan yàlla maanaam gën koo wàññi moo tax sëñ daara Cheikh mu dafa daan wax ne daal nit ki li mu war a tëdd ci biir bàmmeel ak li mu war a tëdd ci kaw suuf li mu war a dund ci kaw suuf ñoom ñaar lañ bokk programme ko du yokk du wàññeeku léegi-léegi nag la nga war a tëdd ci biir bàmmeel fekki wàññeeku fekk la ca kaw la ca kaw tamit mën naa wàññeeku fekk li ci suuf mën ngaa nekk ci kaw suuf di rafetal jokk say bokk boole koog di di jokk di di rafetal jëmee ci sa bokk yi di saraxe di ñaan yàlla dë maanaam teq ci li nga waroon dëdd ci bàmmeel fukki at wala ñaar fukk wala fanweer yokkal la ko nga fekk ko ci kaw suuf man ngaa nekk tamit dagg say bokk di ñaawal doo ñaan doo saraxe yàlla dagg fanweeri at wala ñeen fukk la nga waroon na dund ci biir kaw ci kaw suuf mu ñëw fekk la ci si biir bàmmeel waaye ñoom ñaar nag bu leen boolee du yokk du wàññeeku loolu la ca nam moo tax ñaan di am place waaye boo ne woon yàlla pare na pare na kon jëratul ñuy ñaan boo ne yàlla pare na jëratul ñuy saraxe boo yàlla pare na jëratul ñuy jokk bokk ndax lay am xas na am waaye déedéet nag yàlla am na ci loo xam ne moom dogal na ko ba pare waaye nag bu ko neexee mën naa effacer lii bind lii ndax moo yore si moom moo yore lépp yamxullaahu maa yashaaw wa yusabbit wa indahu umul kitaab moo tax kon ñaan di am solo su ko defee kon nag lu ci mun di am lépp maanaam yàlla xam na ko aaya ji yàllaa ngi bëgg a wax ne yàllaa ngi ñuy nettali géej bu ci bàyyee ko wax ci mbiram asamaan géej nag ñaar la bi saf xorom ak bi bu géej gu neex yàlla na ñoom ñaar xemuñu loolu lay wax si nii moo tax mu ne wamaa yastawi xamut albaxraani ñaari géej yi haada géej gii de xasbun aji neex la furaatun aji dog la mu mar bu la neexee nga ne furaatun aji tar la mu ci neexaay zaayiqun aji jàppandi la sharaabuhu ak naanam boo koy naan buy jàll day neex wa haada géej gi moom milhun xorom la dafa xoromu waaye ujaajun aji xënji la dafa xorom ba ba wex xat ku mu ci ñaari géej yi mënuñoo xem kon lu baax ak lu bon mënuñoo xem yàlla teg ca ne tamit wa taakuluuna da dangeen lekk min kullin ci ñoom ñëpp lu ngeen cay lekk lax man yàpp tariyan wu bees tàq géej gu weex geeg géej gu neex geeg yëpp yéen a ngi cay génnee jën mool yaa ngay dem di gëti di indi seen euh, mbaal ya di ca mbaal jën ya bu ko defee mu nekk ñam ngoo xam ne dafa bees tàq gaa yi ñëw ñu dugal leen seen dàmba yi ñu yóbbu seen paan ya jigéen ña ca marché ya yóbbu maanaam dem jëfandikoo ko te lépp ci géej gu naqare gi ak gu neex gi lépp ma defal leen ko yemuma ci waaye wa tastaxrijuuna yéen a ngi génnee xilyatan takkaay yéen a ngi sàkkoo génnee takkaay talbasuunaha boobu da dangeen sol ko ngeen génnee waaye ñu ne takkaay mi ngi génnee ci géej gu naqari ci lay or beeg jamaa beek takkaay yi waaye ñu ne géej gu neex amul takkaay ñu ne ah kay ñaar yépp ko am ba ci beneen ba ca tegu wa taraa da nga gis alfulka gaal yi fii ca géej ga ma mawaqira ñi way xar ko di xar maanaam ndox ma di nuur ci biir man yàlla def naa ko li tabtaxoo ngir ngeen sàkku min fadlihi ci ngëneelam wala allakum bastale yéen taskuroon ngeen sant yàlla ci xéewal wi rëy lii mu defal leen yëmuma ci man yàlla waaye yiwlu ji mooy tàbbal moom yàlla lay la guddi fi nahaari ci bëccëg mu dolleeku wa yiwlu ji mu tàbbal nahaara bëccëg fi layli ci guddi wa sa saxara mu tàggat samsa jant bi wal xamaraag weer wi kulun ñoom ñëpp ya jiri danañu daw ca seen falag ya li ajalin jëm ba diir musaman ba di buñ tudd te mooy àllaaxira muy àdduna bu tukki àdduna bu tukki rek la bëgg a wax daalikum kookale seen defal leen loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy borom seen lahu aji nekk la ñeel ko almulku nguur wala si na ña nga xam ne nag tadduuna yéen leen di jaamu min duunihi tuun te du wali si yàlla laa ne yamlikuuna amtin min xitmirin lu toll xitmir maanaam lu toll ni moom ci maanaam amuñu ko wa in tad'u in tad'uhum kon su ngeen leen woowee laa yasma'u du ñu dégg du'aakum seen woote bi walaw sami'u bu ñu déggoon sakki na tale mastajaabu du ñu huyu lakum ñeexal leen wa yawmal qiyaamati bu keroog bis pencee yakfuru dana yakfuru na ñoom dana danañu weddi bi shirki kum ci bokkaale gi nga leen bokkaale lii ma wax la maa ko xam te walaa yu nëbbiwu ko du la solo xew-xew ya xew barsaq ak xew-xew ya xew àllaaxira mislu xabirin kem aji xam ju mel ni man ki dañ kumpa ki ko xamee ni man nettalee la ko mënoo koo xamati te nii la demee kon yàlla rek a yàlla kon gis nga lii leeral na ko ko lu ci leer naññ ñaari géej yi mënuñoo xem gii dafa weqat gii neex ku mu ci ñaari géej yàlla ngi ci wërsëgal mool ya ña ngay dem di gëti di ca génne jën yu bees tàq jën yaag tur yu wuutee ya kii ne bii la bëgg kenn ba la la bëgg lépp yàlla tàggatal ko doomu aadama yi ñu koy jariñoo ci biir géej yi tamit ña yàlla ñu ko tàggatal wurus yi ñu mën caa jëlee ay takkaay léegi-léeg ñu trouvé na géej sàngam am na or am na wurus am na nangam ñooñu am seeni matukaay ci réew ma fexe ba génnee ko léegi-léeg ñu ne suuf sàngam jamaa am na fa foofa am na pétrole ñu trouvé ko ut tamit lu fexe ba mën a jëriñoo loola loolu man yàlla maa leen ko defal ngeen jël seen bagage yi teg ko ci si gaal yi ak ci féeri yi ak ci maanaam bato yi muy nuur ci biir géej gi léeg-léeg nga gis kanam gi léeg-léeg nga gis gannaaw gi ngeen yéen a ngi dem di commerce ji ndax dafa tudd fii commerce li tabtaxu min fadlihi dañuy wax ne fukkeelu wërsëgu maanaam xeetu yonantu bi mi ngi nekk ci jënd ak jaay moo tax xeetu yonantu bi seen wërsëg ci ñaar la gën a bëree mooy mbay ak commerce ci loolu la gën a bëree moo tax kon nag mu ne defal naa leen ko ngir ngeen sant su ko defee nag man yàlla sama kartan maa jël guddi dugal ko ci bëccëg xamoo fu ma ko dencoon tey ñu ngi ci bëccëg xamoo fu guddi gi nekk fu ko yàlla denc xamoo ko léegi-léeg guddi gi yokk ci jamonoy sedd fukki waxtoog ñeent léegi-léeg jamonoy tàngoor bëccëg bi yokku fukki waxtoog ñeent loolu lépp fu ma ko denc yéen xamu leen ci dara lépp man yàlla maa ko def kon bu ngeen ma fi bàyyee ña ngeen wuti amuñu dara ñooñu maanaam lu toll ni xit maanaam amuñu ko maanaam arab day sadd lépp ci tuutiwaay li ñu tuddee xitmiir ak fatil ak naqiir boo jëlee tàndarma nga xaar maanaam nga génnee ñam woowa di ko lekk euh, xoox ba bën bën booba ñoom la ñuy tuddee naqiir boo ko xoolee tamit ci biir xooxu tàndarma bi dana am benn fiil bu ndaw bu tuuti moom la ñu tuddee maanaam fatil boo jëlee maanaam tàndarma bi nga xolli ko mbuus googu nga xam ne mooy ëmbu euh, maanaam euh, xooxu tàndarma bi moom la ñu tuddee maanaam miir yàlla ñi ñi sadd léeb nag ci ci tuutiwaay ci ci yooyu su ko defee nag mu ne ñi ngeen ma ma fi bàyyi ña ngeen di jàpp am mënuñoo am lu toll ni loola lu toll ni naqiir wala xidmiir wala fati maanaam fatil ci ci ci ci ci ci dara lépp man yàlla maa ko moom su ko defee tamit xërëm yi ngeen di woo mënuñ leen a wuyu kon bàyyi leen leen fi te ñëw jàpp ma man yàlla loolu rek mooy xulaasu aaya bi xulaasatu aaya bi su ko defee mu ne in taduuhum laa yasmau duaakum daqwante hut nag ne dana ñëw ci aaya jooju aaya ji tegu ci muy yaa ayuha naasu antumul fuqaraau ilallah fa mel ni nit rek moo xaajowoo jëm ci yàlla ba tax mu ne yaa ayuha naas waxut e, mbindee fi waxut maanaam lépp waaye nit ñi rek la wax te pourtant nit nit ñi xaajowoo jëmee ci yàlla malaaka yi noonu lañ xaajowoo jëmee ko ci yàlla waxut xalaayiq waaye maanaam naas rek la wax nit ña dugg ca waxul tamit jinne yi dugguñ ci mala yi dugguñ ci njanaayu dugguñ ci waaye nag lim na ma wax dafa bëgg a wax ne yéen nit ñi ni ngeen xaajowoo jëmee ma ko ci jëmee ci man amul lenn lenn lu ko xaajowoo jëmee ko ci man ñëpp a xaajowoo jëm ci man nag waaye yéen nit ñi yéen ci raw loolu tax mu bëgg a wax loolu ndax nit xaajowoo jëm ci yàlla fa bëri boo jëloon doomu aadama yi cëram yëpp benn bu nekk dafa aajowoo jëm ci yàlla sa loxo bi dana aajowoo jëm ci yàlla da nga bëgg koo mën a tàllal ñi mën la caa tegal da nga bëgg koo mën a jëfandikoo ci guddi wala ci loxo bi pour mën a lekk sa tànk bi aajowoo jëm ci yàlla ci dox sa nopp yi ci déglu sa bët yi ci gis sa biir bi mën a mën a mën a mën a denc ñam bi sa làmmeñ yu ci wax demeet kon cër bu ak soxlaay boppam jëm ci yàlla boo leen nga boole jëm ji yëpp nag jëmm ji yëpp leen soxla jëmm ji yëpp bëgg na jàmm bëgg na sécurité bëgg na naataange bëgg na xéewal te su fekkoo ne aajowoo googa dafa nekk benn yoon waaye duwut benn yoon moom da ni nga ko aajowoo minute bu nekk rek yaa ngi aajoo wala seconde bu ne yaa ngi jëm ci aajowoo nga ko léegi léegi waaye yaa ngi ko aajowaat léegi léegi mu nekk lu sax kon yàlla dëgg-dëgg kenn du moom ndax fu mel ni ku mu di doon soo soxlaa ci moom aajo bët bu set nga taxaw ne ko jox ma jox ma bu yeboo di sa baay dana la jéppi waaye yàlla moom soxla ñu aajo aajowoo jëm ci moom du wut benn fan du benn xat du benn weer waaye lu gën a néew seconde bu nekk ñi ngi aajowoo jëm ci moom terewut moom jéppiwu ñu ba danay wax ne su ngeen ma laajut maanaam bu ngeen ma bu ngeen ma ñaanut man yàlla ma jéppi leen yàlla daal ki ki ki muy jéppi mooy koo xam du ko ñaan rek qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum su ngeen bàyyi ñaan yàlla rek yàlla dootu leen faaleeti kon yàlla bëgg na ko bëgg na ko ko ku ko ku ko ñaan ku mu mun di doon nag loo ko naw naw boo koy ñaan te mu sax rek mu jéppi la yàlla nag ne kon yéen da ngeen aajoo jëm ci beneen bi ci tegu ma ne tamit su ma neexoon yéen ñëpp ma faagaalgal leen indi fi yeneen mbindeef loola ma neex na ko def na ko an suñ maam ya an suñ baay ya demeet kon eh, génération bu fi nekk rek am na bu fi neexoon ñooñu bàyyi ko na kon jamono ju nekk rek maanaam xalqun jadid moo fi nekk ñeneen ñekkaat fi kon ñun ñi balaa yàgg ñeneen tamit ñëwaan ne ana ñun loolu rek moo fi nekk ci àdduna ba mu jeex moo tax mu ne yaa ayuha hee yéen nit ñi antum yéen fuqaraa way xaajohoo ngeen ilallaahi jëm ci yàlla waaye dafa bëgg a wax ne da ngeen a tat xaajohoo jëm ci yàlla nit la tudd waxul ñeneen ñi ndax leneen lu dul nit dafa xaajohoo jëm ci ñett yëpp nit dana xaajohoo jëm ci melow yàlla wi xaajohoo jëm ca tur ya xaajohoo jëm ca jëmm ja ñeneen nga ca des nag nit moo xaajohoo ñett yëpp leneen lu dul nit nag bu xaajoxoo day jëm ca tur ya wala mu xaajoxoo jëm ca melo ya wala jëf ja waaye nag jëmmi yàlla ja moom nit ko a ko xaajoxoo kon moom ñeent yëpp la xaajoxoo xaajoxoo na tur ya xaajoxoo na melo wa xaajoxoo na jëf ya aajoxoo na tamit tabaarakallaahu melokaan wa su ko defee kon nag waaye leen li ci des nag moom du xaajoxoo jëm ci ñeent yëpp moo tax kon mu ne yéen ñëpp nga xaajoxoo jëm ci yàlla wallaahu yàlla moomu ngeen xaajoxoo huwa moom dong alxann yu mooy aji xoomal alxamidu mooy kuñ sant ca meloom ya ñëpp da a ñàkk moo tax kuñ ne faqir nga ngay bëgg a ray sa bopp ñëpp faqir lañ ñun ñëpp ay fuqaraaw lañ ki xoomal kenn rek la muy yàlla waaye xamul ku xoomal ci dara moom daal ñëpp xaajowoo jëm ci moom moo tax mu tofal ci na in yasha bu ko neexee yuzhibkum mu faagaagal leen wa yaati mu indi bi xalqin ci mindéef ah, jadidin bu bees loola moom soob na ko ba tax na jëlee na fi maami maam ya ñooña ñeneen ñëw bàyyi ñëw ñeneen ñëw noona tamit la demee ba ba ñëpp jeex rek génération bu fi nekk rek ñaan nangam ñeneen ñëwaat te àdduna li ko tax a métti yàlla namul mu jag moo tax ku ñëw da ngay tàmbali yàlla bu namoon àdduna jag ku ñëw da ngay sof waaye doo sos waaye te yàlla bu bëggoon àdduna jag day wax ne seen maam yi jaaroon nañ ci mesure nañ dencoon nañ ay soxna amoon nañ ay doom kon fa ñu xemoon ngeen di déparé bu keneen ñëwee déparé fa waaye fi sa maam déparé woon rek ju du nekk liir jooy rek nga man ñi lay leyal di la nax ngay yàq sa bopp ak yeneen ya ca nekk ba mësoor takk soxna ami njaboot dee bu sa doom ñëwee tàmbaleeaat fi nga tàmbalee woon sa sët ñëw tàmbalee fi nga tàmbalee kañ lay àdduna jàkk moo tax ku bëgg ku bëgg a jagal àdduna sonn ndax yàlla na mun mu jàkk kenn ku ne da ngay ñëw def fii rek ba kañ leneen ñëw dee yàlla tofal ci ne wala tasiru du yenu moo tax mu ne wa ma zalika déet loolu bi asisin muy agi jafe ala ala ala laay ci yàlla de jëlee leen fi indi fi ñeneen yàlla def na ko sax moo taxit génération bu ñëw ba leen ñëw aaya yat yi tegu ci yàllaa ngi wane ne àdduna dafa wuteeg àllaaxira àdduna am na ñett àdduna am na yenn ma àdduna am na yenn ma àdduna am na yanule ma àllaaxira amul yenn ma amul yenn ma amul yanule ma moom lu sa bagaas diis diis yaa ko yanul sa bopp waaye moom sa bagage mënu koo diisee ci bàkkaar ba sa papa ñëw wala sa doom wala sa soxna ne xaaral ma xenule la moo tax sax bu la sa jabar gisee day daw su ko defee moom la alquran ne yow ma yafirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi ñëpp ay daw ndax kenn ku ne yaa ngi ragal manquile sa moroom ñaan la xaq man kat dama doon peese fii xaw a manqué poids doo ma dimbale mu ne la taluma la sama bopp dooy na ma damay bañ li la dal dal la yonentu wax na ko sax ci hadis mu ne nga gis jabar jëkkëram taxaw ñaan ko ne ko damaa manqué lépp waa dimbale ma mu ne ko nijaay baaxoon nga lool ci àdduna lu ma soxla nga mas ma koo defal waaye fii nag damay bañ li la dal dal li nga ma bëgg mënu ma la ko de mënu la ko de baay ji wax loola doom ji mu ne ko mënuma ko yaay ji wax ko doom ji mënu mënuma ko waaye fii léeg-léeg nga dem aéroport bëgg a tukki sa poids bi nga xam ne moom nga war a peese manqué waa ji ñëw ëppale ne la dimbal dimbale ma ñu enregistré ma sa sa biir bi nga yóbbul ma dara jamono ji nag wóorut boo ko bëggee yóbbul nit seetal bagaasam ya lan la waaye boo ko buñ la enregistré ca bagaasam ya te mu nekk lu ca nekk da sa billet bi la nekk nga am problème lu ko defee tamit fii léeg-léeg yërmande nit ñi nit bara yenu paan du ko attan nga ñëw yen ko mu bëgg yennee ko nga ñëw yenni ko mu bëgg a yenu lum yóbbu nga ne ko xaaral ma téye la sa doom ji wala saak bi wala valise bi allah xiraa amut loolu kenn ku ne say bagaas yi bopp kenn du xenul kenn dara koo xoo lum la jege-jele nga ne ko nanga mu ne la taluma la sama bopp doy na man la alquran di wax nii moo tax yàlla ne wala tasiru du xenu waasiratun bakkan bu bàkkaar wisra oxra bàkkaaru bakkanam moromam ba kenn du xenu sa bàkkaar ab morom ke bàkkaar bu ne ca bakkan ba ko jëf rek ci lañ koy enregistré waaye duñ jël béeb kenn di ci enregistré kenn wa in tadoo bu xooxoon musqalatun bakkan buñ diisal ci bàkkaar ilaa ximlihaa jëm ci xenuy bàkkaar pour mu xenal ko keneen laa yoxmal deefut xen minu ca moom soy un dara ñu ne ko xanaa dafa fekk duhut ñaale mu ne aha kay walaw kaana doonte nekk na ka ñuy xoo za qurba di borom ak ñaale de doonte jegeñaale la ci baay wala ci yaay wala ci soxna bu ko xooyee mu ne ko taluma la yàlla nag di wax yonentu bi ne ko innama tunfiru daal da nga waar la lazina ña nga xam ne na ñu ragal rabbuhum borom seen bil xaybi ci fàddu wa aqaamoo ñi taxawal dàkk salaata julli wa man tazakka képp koo xam ne sellal na bakkanam ci laabal ko walis bokkaale fa inama yatasakka ndaal laabalam nga li naf si ñeel na boppam wa ilallaahi ci yàlla dong la jëm almasiru mujj waay ba kon àllaaxira ngoog bokkut ak àdduna waaye nag bakkanab xéeféer du mënal ci àllaaxira bakkanab moromam xéeféeram dara bakkanab julit du fa mënal bakkanab xéeféer dara waaye bakkanab julit nag mën na faa jariñ bakkanab moromam julitam dara mën na koo dimbale ci ramm mën na koo dimbalee ci yàlla rus ko may ko ko ni ko hadis bi waxee su ko defee nag moo tax bi yàlla di wax ne wala taziru waziratun wisra oxra ca fële suratu naj mi loola dañ koo folli ci sariyaab seyduna muhammad waaye loolu duutoon lu valable ci sariyaab Muusa duutoon lu valable ci sariyaab yonantu yàlla Ibrahima waaye nag ci ab yonantu bi moom bakkan yi danañ bu ñu nekkee di ay buñ nekkee di way gëm moo tax ñu lay xamal ne fool nañ ko foofa dafa waxal yonantu bi ne ko am am lam yu nëbba bi maa fi suxufi Muusa wa Ibrahima alladi waffa lu ca tegu allaa taziru waasiratun wisra uxra door a wax ne wa an laysa lil insaani illa ma saa ñaar yooya ci sariya bi yonantu yàlla Muusa la ak ci sariya bi yonantu yàlla Muhammad la waaye dañ ko ci sariya bi yonantu yàlla Ibrahima dañ koo foole ci sariya bi yonantu yàlla Muhammad kon bakkani jullit yi dañ jëriñante waaye nag bakkana bakkanab xéeféere du jariñante bakkanab julit tamit mën ta jariñ foofa bakkanab xéeféer dara waaye nag bu ngeen nekkee ay julit nga manquile yooye yàlla mën na leen a dimbale rusee la kile mu ràmm la wala mu rus la kile may la ko te loolu danaa ci yegsi ci kanam tuuti fii nag muy wax ñàkk yam gi ne wa maa yastawi xemoowut al ama xéeféer bi wal basiiru ak julit bi mënuñoo xem wala xulumaat yu caakeen lëndëm yi moo xam lëndëm yi xéeféer la ak lëndëm yi du xemoog wala nuuru ak leer gis nga leer da ko mufratal ndax ci lenn rek lay soqee ko muy tawxiid te benn la yonentu yëpp seen tawxiid benn la moo tax defut ko maanaam anwaar xulumaat nag kéeféer ay façon la ka ka ka kéeféer weddi yàlla di jaamu jant kay jaamu xërëm kay jaamu ndox kay jaamu nit kay jaamu malaaka duñu benn bàkkaar yi tamit ay lëndëm la dafa wuutee bàkkaaram mooy bàkkaaram ñàkk a wax dëgg bàkkaaram lekk xal li jàmbur yooyu xuutee gi mu xuutee moo tax mu def ko jamu mu anna tax mu ne wa maa yastawi di xemoo al ama xéeféer bi te mi ngi ci na mu aji gumba ji ci gis-gis te mooy ki gumba ki gumba ci xol mooy ab xéeféer wal basiireeg njàccaar bi te mooy ki njàccaar ci xol wala xulumaatu du caa kenn lëndëm yi wala nuuru du caa leer wala xilu du caa kenn ker wala xarooru du caa kenn mbooyo ker gi mi ngi ci nam mu aljana mbooyo mi mi ngi nam mu safara kon aljana dafa dàq ñett kon aaya dafa dàq ñett dafa wane ne jëmm ya tolloowuñ mooy axma ak basiru mu tegal ci ne melo ya tolloowuñ mooy wala xulumaatu wala nóor mu teg ci ne barab ya ñuy dëkk ëllëg tolloowuñ mooy wala xillu wala xarooru kon ñetti yi benn tolloowul ci mu indi nag misaal mu gën a rafet te gën a matale ñaar yi passé moo tax mu baamuwaat fexel ja tudd na ñetti yoon baamuwaatul fexel ji waaye bi mu baamoo fexel ji li mu wax dafa matale moo tax mu ne wa al ahyaawu way dund ngi ci xol mu dugal jullit ñëpp walal amwaat du caa kenn way dee ngi ci xol mu dugal mbooleem xéeféer yeeg la ñu weddi inna allaha naka yàlla yusmiu dana déggale man yasaaw ku ko soob wa ma anta déet yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi musmi'an ngay mën a aji déggale man fil qubuur ngi nekk ci bàmmeel yi li ngay wax mënoo koo déggale ngi ci bàmmeel yi dee nañu in anta déet yow illa nadhir lu nga nekk aji waare yaa ngi waar ku la gëm ci aljaana ku la di ko bégal ku la weddi ki safara innaa naka ñun yàlla arsalnaaka yónne la bil xaq ci dëgg bashiran mbir mu ngay aji bégal ku la gëm ci aljana wa nasiran ngay aji xuppi ku la weddi ci safara wa in min ummatin amul benn mbooloo illaa xalaalu du ba wéy na a ca mbooloo ma nasirun aji waare kon njëkkoo fee nekk waaraatekat wa in yu kasi boo ko su fekkee narloo nañ la faqad kazaba narloo xoon na la si nga xam ne min qablihim jiitu woon nañ la jiitu woon nañ leen jiitu woon nañ sa gaaya jaat hum dikkaloon nañ rusuluhum seen ndaw ya bil bayinaati ànd ak layu leer wobi suburi ak téere waaye subur mi ngi ci namm rek téere yoo xam ne ay waaraate la ak i ñaan mooy téere Ibrahima ya ak téere yonentu yàlla Idris mooy muy suhufu Ibrahima wa Muusa waaye nag téere yi nga xam ne nag mooy dafa ami waaraate ami ay atte moom mu indi moo tax mu ataf ca ne bi ak téere mu niiro yay leeral moo tax mu wasafalee ko mu niir ndax dañoo am ay ahkaam ay atte yu ñuy leeralee nit ñi yàlla ne su ma xas topp mañ mbugal la fi na ñi nga xam ne kafaroo weddi woon nañ fa kay fa kaana naka la nekkee nakkiir yi sama mbugal ci gaa yi tamit noonu lay demee de kon aaya ji dafa bëgg a wane ne kon ku xas dee nekk ci bàmmeel fa bëgg mel ni mel ni déggut waaye dàqut loola nit ma bu dee mën naa dégg li koy firndeel yonantu bi bi dara paase ñetti fan dafa jékki-jékki rek génn saxaba bay def ñaari xaaj ñii ne mën naa am soxlaay boppam lay doxi kon buñ ko topp ñeen ngi ne nañ ko topp ñi topp ko ñu dem ba fa badar nekk kàmb ga gaaye gañ gañ gasoon dugal ca xéeféer ya mu commencé di leen rappel yaa abu jahlin ibnu hisham yaa utbatu yaa shaybatu ne leen ñun dee lañu ñu suñ borom digaloon jot nañ ko qad wajadna maa waadana naa xaqan damay laaj nag fa hal wajadtum maa waada rabbukum xaqan ndax yéen jot ngeen yi leen seen borom digal Omar nu Xataab ne ko ñii medd nañ bu yàgg yaa ngi wax ak ñoom yonent bi ne ko maa antum bi asmaa minhum bayda annahum la laa yujibuun yonent bi ne ko li may wax gënoo leen koo dégg de ni niñ ko déggee lañ ko déggee waaye nag lii li ngeen xuutee rek ñoom mënuñoo tontu moo tax néew bu deexee nga tëral sang di seede di wax lépp li ngay wax moom ma ngi koy dégg moo tax kon booy wax waxal loo xam de ndax moo léegi nga wax mun laa yaa mën a kàcc li ngay wax dara xamu ci kon moo tax wax ci loo xam baax na ci ku fi yàgg-yàggee fi kon ñi daanee ci aaya ji yàlla ne alam tara xanaa sa xam ne ana laa naka yàlla ansala wàccee na mi ne samaay ci asamaan maa an ndox waaye niir yi la ci namu fa axraj naa ñi bihi ci niir yooya wala bihi ci ndox moomu samaraatin ay xeeti meññant xeeti meññent yoo xam ne muxtalifan aju huutee la alwaanuha seen couleur ya kon am na ci menn ci muy benn wa minal jibaali aji tukkeekoo la ca doj yi juddadun ay yoon juddadun jamoo maanaam juddatun fekkee na am ñu jàng juddudun damm ñaar yëpp su boobaa maanaam jamoo jadiidatin lay doon mu ne am na ki doj yoo xam ne dafa am yoon lu ci mun di am biidun am na yu weex wa xumrun am na yu xonq muxtalifan way huutale alwaanuha kulóoru maanaam doj ya ak yoon ya wa garaabiibu am na yu kukk suudun yoo xam ne dañoo ñuul de wa mina naasi am na ci nit ñi wa dawaabeeg daa bay wala anaameeg juru kër yi muxtalifun aji huutale alwaanuha seen melo ya kazalika noonu lan mel innama yaxsha daal dana ragal laaha yàlla min ibaadi ci jaamam yi al ulama borom xam-xam yi ñoom rek a ragal yàlla inna laaha naka yàlla azizun aju not la ci nguuram xafurun jéggalaa kon la de aaya jooju la ñuy daane teg lañ ci seen baaraam aaya ji mooy lan yàlla dafa bëgg a wax fi couleur yi soqee koo xuuteeg melokaan yi fu mu soqee la bëgg a wax mu bëgg ko wane ne ko wane ne ko ci nabaat moo tax mu ne bihi fa axrajnaa bihi samaratin wane ne ko ci jamaat yi moo tax mu ne wa minal jibaali judadun wane na ko timit ci xayawaan yi ak mu ne mu ne mu tudd ko ci dawaab yi wane na ko tamit ci nit ñi moo tax wa minan naas yi kon nag yàlla ne couleur yi ci man la baxee koo man laay man yàlla la soob mennam ndox mi ma saxal ci gàncax couleur ya wuutee bii verte bii zone bii bleu bii ñuul caf nga ya tamit wuutee te mennam ndox moo leen nàndal man kenn maam man loola mu ne tamit noonu ma defee ko laa ko defee ci jamaat yi léegi-léegi nga gis wenn wenn wenn doj benn yoon ñëw traversé ko jang yaa nga gis tineel yi ñëw bëtt yoon yi yoon wi ñëw ñuul kook dox doj wa weex tàll léegi-léegi doj wa ñuul yoon wa maanaam weex couleur ya wuutee ci yoon yi ñe nekk ca kaw montagne ak ni montagne yi wuutee ci doj yi loola ku ne gis na ko yii dañoo weex yi ñuul wax na ko sax biidun wa xumrun muxtalifun alwaanuha mu ne tamit noonu tamit la couleur yi wuutee ci bàyyi ma léegi-léeg nga gis ki am xar bay nag bii ñuul bii bii xonq léegi-léeg sax benn bàyyi ma bi am ay couleurs yu wuutee benn bàyyi ma bi am lu weex am lu ñuul am lu am am am am beneen couleur xam naa du ñàkk ku may déglu ne kii de sama fas wi lay wax wala sama mbaam mi lay wax ndax man nii la mel kon yàlla wax naag suñ mbaam yépp wax ak fas yi wax ak xar yeeg bëy yeeg ganaar yépp couleur yu wuute yi mu ne tamit noonu mu amee ni la amee ci nit ñi moo tax ñun mënuñoo fay alquran sagal nañu dañu loolu boo déggee mën a ci nit ñi yahood yu bon yi dañ doon xas nit ñu ñuul ñi ne nit ñu ñuul ñi xam nga seen ñuulaay bi fi mu soqee koo ñu ne déedéet mu ne ah kay xam nga fi mu soqee koo ti yàlla noox ba mu duggee ca gaalam nga dafa am lu feeñ ci moom lu warutoon a feeñ doomam bi xaam njëkk koo gis ree su ko defee saam gis ko moom e, nëbbu loola noox bi mu yeewoo nag yëg loola ñaanal maanaam doomam jooju xaam moo tax mu ñuul kuku meññetam wi ñuul xam nga wax ju ñaaw a ñaaw la te pourtant ñoom ñooña di wax loola di yahood yi ñoom ñooña ñoo njëkk yàlla di wàccee ci ñoom tawreet ak njëkk di yàlla di wàcc yónni yonent yàlla Muusaa ki ñoom ñoo gënoon a xées ki ñu yàlla bind ndax li ñuy wax jaamum nit ku ñuul lañu woon jaami nit ku ñuul lañu woon jaami firawna lañu woon firawna nit ku ñuul la woon kooku alquran wax na ko an nu'minu li basharayni mithlina wa qawmuhuma lana aabidun kon jaami firawna la te firawna nit ku ñuul la woon waaye Muusaa moo ñëw libéré leen jëlee leen ci jaam ak firawna giñ doon jaamu kon ñoom bu ñu xem ni ki ñuul ñi xamuñu lu xew yàlla nag wane ne couleur yi ci man la bàyyeekoo man la soob ma bind ñii ni ñuul di ay nit ñii ma bind leen ñi xees ñii xonq ñii tamit yore maanaam métis lañ xew xonq ñu ñuuluñu noonu la amee ci bàyyi may nii la amee ci noonangam kon ñoom bu ñu bëggee xas ni ngi ñuul ñu seen ñuulaay bi ñu ko jëlee foofa kon waaw xar yeeg bëy seen ñuulaay bi fu ñu ko jëlee der jar naa laaj fas yi ñoom tamit seen ñuulaay bi fu ñu ko jëlee kon maanaam loola wax ju ñaaw ju ju joo xam ne saboté la ju bon a bon la waaye tamit yàlla tontu nañu leen bu alquran amutoon ñun ñun ñu ñuul ñi duñ mën a setal suñu der waaye alquran moo ñu setal moo tax ba ñëwee wax wax ju ñaaw ji alquran ñëw na setal ñu moo tax léegi-léeg xiraat yu bon yooyu naan nit ñu ñuul ñi fi lañ bàyyi ko am ñuy wax naan golo yi tamit ci nit ñu ñuul ñi lañ bàyyeekoo wala noonu loolu wax ju bon la su boobaa wax dëgg yàlla nag su fekkoon ne golo ci nit la bàyyeekoo léeg nga gis golo silwiise ba soppeeku nit wala maanaam nit ki moom salté salté ba soppeeku golo waaye ñaari comme benn amagu ci nag day tekki ne kenn bàyyee ko wut sa morom moo tax sëriñ ba ba ko ba muy liggéey ba muy waa ba mu meroog taalibe ba lu nekk mu wax ko rek këy rek wax sëriñ bi taalibe bi wax sëriñ bi ne ko taalibe bi sëriñ bi kon wax taalibe bi ne ko dag may fonto mais la soppi golo wax wax mu ne ko dinaa la soppi golo waaye nag sa taalibe bi ko mën a tontu la ne ko sëriñ comme man ngaa soppi nit golo te ngaa jël golo yi soppi leen nit boo ma soppee golo da nga yopp golo yi golo yi liñ mënee yàq nga yokk yàqaay gi rek golo yi liñ bëree doy na yàq bi doy na soo ma ci jëlee dolli ma ci yàq gi gën a bëri foo koy laye kon jël ma maanaam nga jël ci gole yi soppi nit moo gën a am solo kon maanaam loolu lu jar a baxi xel la yàlla daal mënuñ koo fay yàlla ñu yàlla fayal boppam ci barkeeb yonent bi fayal ñu sayduna muhammad mi ñu leeralal alquran wàccee barkeeb alquran ci ñun wàccee ko ci yéen wàccee ko ci borom kër gi euh, wàccee ko ci mbooleem jullit ñi fu ñu mën di nekk dañoo xaw a déborder ci waxtu wi ñu wa rahmatullahi wa barakaatu